asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bi di rafetlu teewaay bi ak jotaay bi di ñaan lépp lu fi jot a def rek muy lu jëm ci njàngum alxuraan meeg njàngum xasida mi ak tuddu yalla gi suñ borom defal ñuko ay tiyaba fulal ñuko laqal ñuko fu yàq dul yegg ñu ngi koy ñaan ci darajay borom bis bi di soxna jaaratullaahi Mariam buso ginnaaw lol ngeen ko baaxee ngeen ko baxo amé ci xew-xew yu yu ni mel wala ci bés bi sax sa yu ñëwee ñu nafarat fàttalantiwaat ci dunduk soxna si euh, waral bis bi di soxna jaara waaye fàttaliwaat mbokk yi melaw soxna soosu ak naka les ko mën a roye ci ay jikkoom yu rafet yamu amoon tey jii nag ñu war cee ànd ak soxna bu Fall mu war ñoo waxtaanal ci thème bu am solo te mooy euh, jullit bu jigéen bi naka la mën a dundee ak jullitam maanaam naka la lay mën a defee li ko war ci digganteem ak boroomam ci ak jaamu yàlla te du koy du ko yàqal ay warteefam yi mu war a dox ci àdduna ndax léeg-léeg dañuy jàpp ne ñaar yooyu mënuñoo ànd te mooy di dund sa adduna waaye boole ci di dund sa diine te ñaar yooyu yu mën a ànd lañ waaye faw aw doxalin lay doon aw tëralin lay doon boo xam ne lu ñuy xam la di ko jëfe mu mel ne it royukaay yi nga xam ne suñ borom baaxee nañu ko ñun ñu bootu ci sëriñ bi rawatina jigéen ñi te mooy soxna yu sell yooyu nga xam ne seen yaay mooy soxna Jaaratullaahi Mariam Bousso léeg-léeg jamono yi booy nettali ay jalooreem di ci génne ay meññet yoo xam ne yu ñu mën a royee la ci moom léeg-léeg mën nañ mën mën nañ laa dab na la ne la ah yow yaa ngi may wax ay ay ay ay sàkket yu daan téyeeg yooyu taman taman man man gisuma aw aw sàkket léegi man nan laay def loolu la bi ciy tegu rek mooy néewuñ da dangay def lam daan def waaye yow jamono ji ngay dund yaay xool naka ngay mën a royee soxna si ci tolloog yow ci yi ma jot a tënk nii daal ci la ci la ñu soxna si soxna Zeynabu Fall mi nar na nar a baaxee ñuy ñaan suñu borom defal ko tawfiq ba lim bëgg a yeggale ci ci njariñ mu am ci lu kawe njottam ci barkeb sëriñ bi ak barkeb soxna si kon duñ def rek lu jox ko mu tàmbali bismillah soxna zeynab waa ñu ngi ziar mbooloo mi fi toog yépp di jiital ci nuyu bi ñabatu sëñ tubaa gi ak jawayu daay bi sëñ babacar di leen sen seen wàccuwaay di leen ñaanal tawfeex ak jàmm di ñaan suñu borom jotaay bi ñu toog di ko màggal guddi soxna su tedd fi nga xam ne mooy waajur suñu yaakaar tey ak ëllëg lépp luñ fi def ci jaamu yàlla ak lépp luñ fi wax yàlla bu mu nekk neen yàlla na ko suñ borom def ci suñu ay misaanu xasanaat xam nañ ne mbokk yu jigéen dafa am wàccuwaay bu am solo ci lislaam am wàccuwaay bu am solo ci société bi loola tax ñu ne comme euh, màggal gi màggalu soxna la tam dinañ ko jëmale ci jigéen ñi soññaat suñu mbokk soxna yi thème bi ñu waxtaane tey nag mooy comme ni ko sëñ bu sa leeralee rek mooy jigéenu jullit bi naka la mën a fexee ba dund diineem comme ni ko ko boromam sante waaye mën a dund àddunaam tamit te du ko yàqal dara ci diineem ndax comme ni mu ko waxee ñaar yooyu day mel ni dund diine ak dund àdduna dañoo dañoo dañoo am contrainte dañoo dañoo différent te ñaar yooyu lu mën a ànd la waaye nag dafa am lu koy gunge faaw jigéeni jullit bi xam ba pare lan moo ko war ci diineem naka lay dundee diineem bu xamee loolu dina tax àdduna bi mu xam tamit lu ñëw naka la koy jàppee ndax li dëppoo na ak diineem wala dëppoowut ak diineem ndax xam nañ ne lislaam dafa maandu lislaam dafa bëgg wasatiyam maanaam yemale lislaam newul jigéen rek dangay toog ci kër gi rek croiser les bras yow yar xale yi kese waaye xam nañ ne jigéenu jullit mënta ñàkk a génn ndax xam nañ ne hôpital yi liñ taamu mooy jigéen bi bu fekkee maanaam mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi tollu na ci yëfu jigéen liñ ta li lislaam taamu mooy mu fekk fa moroomu jigéenam mu rewle ko te kooku su fekkee maanaam jigéen googu daa toogoon ci këram rek xamul dara kon bu demee du fa du fa fekk jigéen naka noonu tamit xam nañ ne jigéen war naa génn liggéey war naa tamit comme ku mel ni jàngale waaye dañu sàtt liggéey boobu noonu lislaam da ko da ca teg ay dawaabit maanaam jigéenu jullit bi buy génn këram dafa war a xam nan lekk koy génn nan lay génnee kon loolu la ñuy waxtaane loolu la ñuy faram-fàccee tey jii dañ koy njëkkee rek ci maanaam xam jàngale lan mooy lan mooy lan mooy diine lan mooy dund diine xam nañ ne eh, mbokk lislaam dafa fekkoon jigéen mu nekk koo xam ne dafa doyadi nekk koo xam ne daanaka considerewuñ ko ak àggoon ba daan ko gas di suul jigéen daawuñu ko sax jox miiras waaye dañ ko daan donnante nit ki bu waajuram mësaana faatu wacc fi soxnaam day jël soxna soosu donn ko waaye jigéen nit bu njëkk nit bu ko daan takk daaw ko sax jox can lislaam bu mu ñëwee jële fi loolu lépp waaye teral jigéen ne kenn balaa takk jël benn soxna na ko jox can te na aw ci ay kilifaam amul jékki-jékki rek gis soxna rek jël yóbbu sa kër bu njëkk looloo fi amoon lislaam ne loolu lépp na fi jóge jigéen bu waajuram faatoo nañ ko jox wàllam ci miraas mi waaye jigéen tamit lu mu liggéey ba moomal ko boppam moo ko moom keneen moomu ko kon kooku nga xam ne moo teral jigéen jigéen war na koo delloo njukkal te nan la koy delloo woy njukkal mooy jigéen war naa xam lan lan la ko boromam sant mu nekk ci xam nañ ne lislaam dafa bëgg jigéen mu nekk koo xam ne da koy por da koo bëgg protéger ci yi nga xam ne xam nañ ne bu njëkk jigéenu julit bi dañ ko daan euh, nu ne lañ ko daan jëfëndiko comme ni comme ni ma ko waxee sànq bi l'islam ñëwé daf dafa pour pour dindi lolu dafa am ay dawabit yum yum tegal jigen, am ahkam sharia yo xamné ne jigen bi li la ko sant nako def lan la l'islam sant jigen xam nañ ne li ñëk ci mukallaf bi moy borom lahdari day wax né li njëkk ci mu kallaf bi mooy mu weral ngëmam waaye bu ci jógee mu xam lan la lan la lan mooy ay faratay jëmmam xam na ne am na farata yoo xam ne kenn mënu la ko defal yaa ko mën a defal sa bopp lu ki mel ni julli ak laab ak ay woor yu mel noonu nit ki moo ko mën a defal boppam kon jigéen li njëkk ci moom mu war koo xam mooy dafa war a xam naka lay defee faratay jëmmam mu mel ni suñ mbokk jullit ñu suñ mbokk jigéen ñu bari dañoo sàggan ci côté boobu am na ñu bari ñoo xam ne maanaam laab moom sangu farata mënuñu ko am na ñoo xam ne tamit xamuñu ko ba pare am kersa di ko laaj xam nañ ne la xayaa fi diin diine amul kersa nit ki lu la ump ci sa diine danga ko war a laaj ak noo mën a toll boo doonee mag ak boo doonee xale ak foo mën a toll danga ko war a laaj nga xam nañ ne laab mënoo julli te laaboo waaye mënoo woor tamit te laaboo waaye xam nañ ne mbokk ju jigéen ñu bari julli tamit mbokk jigéen ñu bari xam nañ ne julli moom daanaka nuñ ko sentiree lañ koy defee nuñ ko sentiree lañ koy defee des fois ñu julli waxtu wi waxtu wee ci topp duñ julli wala sama genre gu bëgg nelaw gi dañuy xaar ba waxtu yëpp passé ñu ñu tegale ko ramas ramas ko benn yoon julli ko bu ko defee mag maanaam julli jaamu yàlla gi joxuñu ko benn yitte day mel ni du farate ci ñoom te xam nañ ne mbokk yi jaamu yàlla mooy defar doomu aadama nit ki bu fonkul jaamu yàlla lu ne mën na cee dugg surtout jigéen xam nañ ne jigéen ku ne war naa ne jaamu yàlla ba mu des moom ndax dañ ne jigéen bu baaxee rek société baax ndax nit ñi ci mbedd mi ci kër yi lañ jóge te kër yi waaju ay waajur lañ fi bàyyi te waajur yi xam nañ ne jigéen moo ëpp responsabilité ci ñaar ci yar njaboot kon kii yar njaboot dafa war a nekk woo xam ne dafa dafa day day dund day dund diineem di jëfe li ko diineem sant man kee toqatal euh, tonkantal njabootam waaye bu fekkee ne yow dangaa sàggan Eh, waxtu yi fonkoo ko doo doo fonk maanaam yow daal li la yàlla sant xamoo ci lu bari loolu loolu ngay jàngal sa njaboot buñ génnee tamit loolu lañuy ñuy waaye xam nañ ne jigéenu jullit bi bu xamee ay farataam ba pare lim ci war a teg mooy eh, jàng sax lañ waroon jiital ndax xam nañ ne jàng moo lay xamal say farata manam dama dama nan goor sax man na am mu baña xam waye jigen dafa wara xam jigen jigen ki nga xamne moy moy defal nit dafa wara xam xam nañ ne manam jigen manam mo ñëk ci moy moy xalé bi ci jigen yow yow ya koy ëmb yow ya koy imbi yow ya koy yar yow la gëna jégé yow yow yow la gëna jégé kon comme yow mi mu gën a jege yow yaa war a njëkk a xam pour xamal ko xam nañ ne maanaam képp ku fi baax rek juram am na ci responsabilité bu rëy a rëy bay na ci waar wu màgg màgg màgg màgg loo tax jigéenu jullit bi dafa war a xam waaye bokk na tamit ci li ko lislaam sant mooy muy sàng aw cër ci ay ci ay ay ay cëram comme niñ ko xamee jamono ji nga xam ne jigéen ñu bari jàpp nañ ne moom col gi moom noo ko sentiree rek maanaam xàmmewuñu colu biir kër ak colu biti li ñu war a sol ci ci ci kër gi moom lañuy ñuy génne ci mbedd mi xam nañ ne dañoo euh, li ñu santaane ci col biir kër gi mooy bu la neexee mën naa mën naa xat bu la neexee mën naa yaraax waaye bu la neexee mën naa gàtt ndax foofa ñi nga xam ne araam nañ la peut-être ñoo fa nekk wala sa borom kër kon foofu santaane nañ ko fa te moo moo moo fa gën waaye booy génn nga xam ne ay góoru jàmbur ngay taseel ñoo xam ne dañ laa araam dangaa war a muur say cër danga war a suturaal sa yaram jigéen dafa war a fiir ci boppam sa boroom kër bi la takk moom rekk moo am droit di gis yenn parti yi ci yow waaye xam nañ ni jigéen ñi léegi sàggan gi doy na waar te xam nañ ne maanaam ñàkk a ñàkk ñàkk noonu ñàkk muur waxuma sax muuru mais sol jot gi ñàkk ñàkk giñ ko ñàkk def dafa bari bari lu muy waral xam nañ ne maanaam yow mi nga xam ne yow yaay ëmb sa biir bët yi bët yi di ci tege bët yi di ci teg loolu dina waral doo jur doom ju baax wala dina waral doom joo jur seytaane am ci yoon yal nañ ci yàlla musal xam nañ ne jigéen liy ndamam mooy mu am doom ju baax doom joo xam ne da koy jariñ moom waajuram ci boppam jariñ aw askanam waaye jariñ société bi jariñ lislaam te loolu li koy waral jigéen li koy waral mooy jigéen xeex ak xeex ak seytaane góor góorgóorlu ci boppam bu baax a baax a baax waaye fegu tamit l'islam dafa sant jigéen mu fegu xam nañ ne euh, jaxasoo bu amul njariñ bi bari na lool jamono ji pëccëxoo bi jigéen jigéen ñi daanaka maanaam jaxasoo bi nu ne noonu la neex rek lañ koy defee na ma yàlla baal maanaam lëngante góor goo xam ne araam na la tàppante bi maanaam jàppee ko fo daal jàppee ko fo du ay fo du ay fo daganul jigéenu jullit di jox góor goo xam ne da ko aram sax loxo waxatuma nag ngay tàppante di lëngante maanaam loolu day wàcc wàññi daraja jigéen day wàññi daraja jigéen kon danga war a fegu danga war a fiir ci sa yaram kon loolu bokk na ci li lislaam sant jigéen waaye beneen bi ci topp tamit moy top sa borom kër mu melni ni point mom, mom jigen ñu bari mom am am amati nañ ci problème top sa borom kër xam nañ né euh, borom kër dafa nek lo xamné ndax ko xamné suñu suñu yaaka tay ëlëk nee na bu gërëmee yalla gëreem koku ku ñu wara fonku la waye bu xarabé tamit yalla xarab bu la gërëmee tamit dëgg sa na leer na waaye bu la xare bee tamit jaruñu lay sàng jaruñu lay jullee ndax mbokki jullit ñu jigéen ñi nañu góorgóorluwaat ci sëy yi nañu fonkaat borom kër yi dañu xam ne jigéen lépp lu am rekk ci sëy la ko amee ci sëy bu rafet dafa am euh, ay soxna yu mës dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko di ko di ko jàmbat ne ko ñun daal dañoo bëgg a xam suñu wàcc waaye ndax xam nañ ne góor ñi ñooy dem xare te ku dem ci guerre boo deewee àjjana ngi dem directement ñun ñooy topp seen ginnaaw di leen may ndox léegi ñun lan mooy suñu suñu suñu fay mu ne ko jigéenu jullit rafetalu sëyam mooy mooy jihaadam bu rafetalee sëyam ba dee ci àjjana la jëm directement kon war naa jéem lu mu man pour rafetal sëyam te xam nañ ne suñu royukaay boroom màggal gi soxna jaaru laat <laughs> soxna jaaratu laay bu sa xam nañ ne lépp lum am rek sëyam bu rafet moo ko ko may ndax bi muy am fukki at ak ñeent lañ ko jox suñ maam maamu Anta Sëli waaye li ma gën a yëm mooy bi bi muy dem dogu gi mu àndaale dogu gi door xale bu ndaw 14 ans maanaam nga am yéene dem dem fekk nga fa say nawle waaye nga am yéene jur jur jur yonent nee nañ eh, bi nga xamee ne may nañ ko Maam Anta dafa dafa dafa tijji alxuraan biñ koy biñ koy biñ koy waaje yóbbu dafa tijji alxuraan nee na bi mu tijjee aaya bi mu yem mooy maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallaahi wa xaatama nabiyi mu xam ne yonent dootul wàccati nee nañ mu jooy ndax yéene mooy jur yonent waaye mu ne dinaa jur koo xam ne fuñ tuddee yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam tudd ko fa mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg yéene jooju dafa am solo xam nañ ne su yéene ju rafet jooju yéene ju rafet jooju waaye yemul ci yéene ji mu boole kook jëf xam nañ ne bi mu duggee kër Mamour Anta Sali ba keroog ni muy wàcce jugul ci di topp ndigalu borom këram jugul ci di fonk euh, boroom këram ak di ko tarbiyawu ak fonk ay nawleem yi nga xam ne ñooy ay mbokki daaraam yu mu fekkoon ci mu fekkoon ca kër ga xam nañ ne nee nañ bi mu wàccee ci kër gi rek daanaka la teggil maam euh, Soxna Anta Ndiaye liggéeyu kër gi moom lépp moo ko daan def bu xëyee bale kër gi root ndaa yi boole kook toggu li ba pare bu guddee muy fanaanee jaamu yàlla wax nañ ne euh, da bu bu mosaan toog ak euh, suñu suñu yaakaar tey ëllëg Seex Xaddim da koy wax ne xiyaamu layli da bu saalixiin gaa yu baax yi liñ leen daan rawee mooy liñ daan rawantee mooy di taxaw guddi nee nañ depuis bi ko euh, Seex Xaddim déggee radiyallahu taala anhu te booba xale la mais dañul di di taxawal guddi te booba mesure sax xale la mais maanaam waajuram bi ko wax noonu waajuram mi ko mi ko wax loolu tax na bàyyitu ko ba ba ba nim eh, wàccee liggéey kon eh, jigéenu jullit topp sa borom kër mooy li ëpp solo Fonku sa sëy waaye xam ni tamit jigéenu jullit dafa war yor ay jikko yu rafet xam nañ ne jamono ji na ma sama mbokk jigéen ñu bari doy nañ waar doy nañ waar lool rek ci jikko jikko jik boo koo ci jëflanteel daal di nga di nga xeeb jikkoom ndax xam nañ ne jikko jikko dafa jikko dafa am solo maanaam jigéen ñi jëw gu bari gi na ma yàlla baal maanaam jotaayu jigéen ñu bari boo koy boo koy déglu daanaka jëw gu bari gi jëw lañ fay nekkee na yàlla baal jëw duñ fa duñ duñ toog jataay benn jataay boo xam ne ji jigéen ko toog ñuy waxtaane maanaam loo xam ne da leen di jëmalee seen àdduna kanam wala seen diine daanaka bariwul loo koy gis fuñ toogee ñi nga diw gis nga ko gis nga lam mu sañse ci ci ci ci màggal gi gis nga musóor ga nam ko def moom de toj na fi jëw maanaam jàppee ko lu jàppee ko lu woyof te xam nañ ne jëw dañ ne fanweeri njaalo mooy wecc benn jëw fanweeri njaalo ak njaalo ni ko suñ borom bañe fanweeri njaalo mooy wecc benn jëw te xam nañ ne jigéen ñi na ma yàlla bal jëw gi bari na yaa ngi yaa ngi jëw gu bari googu noonu yaa ngi tilimal sa xol yaa ngi tilimal sa bopp te yëgoo ko waaye xam nañ ne tamit jigéen ñi ñàkk sutura bi wérante bi sutura manam dañuy ag ba nga xamné manam seen borom kër bi len yalla bolé sax duñ ko mëna sutural mom de defaluma dara ma ngi sama morom yaa ngi bima bi ci duggé ba lune lu ne lu ne lu yak lu ne lu ne maanaam yàq sa yak sa borom kër japp né manam yow fi né lol dang ci dang ci dang ci yëkëté sa bop da fekk né yow ngi sa bop ci souf loolu amul benn njariñ nañu nañu amaat sutura xam nañ ne mag ñu baax ña li am tey ji tey la say gën a neex te démb la say gën a metti te démb la say gën a baax xam nañ ne li am léegi jamono ji la góor ñi gën a defal jigéen ñi te jigéen ñi jamono ji lañ gën a rakkaaju dañuy wax ne suñ suñ maam soxna jaara bi muy bi muy dem kër waaye juróom mu jigéen soxna Asta Wala da dafa dafa yëkkati ay takkaay jox ko waaye lu mu ko ci tegal mooy boo demee bu laaj sa borom kër njël bu laaj sa borom kër njël ban jigéen moo nangu tey dem dem di di bañ a laaj njël bu soowee yàlla benn weer bu ko fa defee lekkut joxuñu ko njël soobee yàlla ñibbiwaat na bor kër ndeyam ak baayam waaye loolu sax loolu sax garaaw yow di fa fekk njël di nga fa fekk lu ne waaye maanaam loo xam ne du du loo xam ne du farate daanaka ay ay yoo xam ne amul benn bopp boo ko laajee sa borom kër sa jox la ko bu soobee yàlla du am jàmm ci kër gi loolu lu doy waar la jigéen ñi war nañ koo bàyyi xel te xam ne sëy du ay caaxaan xam nañ ne àjjana lu du lu ndaw te suñ borom bu la diggee àjjana rek bu nee boo rafetalee sa sëy mu mu mu mu am nga àjjana kon xam nga ne sëy bi du du lu yomb ndax suñ borom dane inna allaha istara minal muminina anfusahum wa amwalahum yàlla dafa jënd ci yéen seen bakkan yi ak seen alal yi kon koo koo àjjana du ñuy du lu ñuy maye dañ koy jaay kon nañ xam ne sëy bu jihaad la ñu lu ci bu baax a baax a baax waaye xam nañ ne tamit jigéenu julit bi lislaam may na ko muy génn di liggéey ndax xam nañ ne jamono bi tamit tey jii dafa metti jamono bi kër yi tamit dafa metti te bëgg-bëgg yi dafa bari kon jigéenu julit bi lislaam dina ko may mu génn di liggéey waaye nag boyaluñ ko noonu rek ne ko mën ngaa génn waaye dañ ne ko booy génn nii nan la war a génnee lislaam da ko ne booy génn fexeel ba na nga muur say cër comme ni ñu ko waxee woon ba nga xam ne doo yee fitna waaye génn sa kër wax dëgg yàlla koo teseel yóbbee ko bàkkaar nag tout la journée mën naa ñàkk xam nañ ne li jigéen dafa am lu ko nu ko nu ko nu ko nu ko yàlla bindee jigéen bu yemut góor kon am na noo xam ne su ko melee rek day maanaam fit mu mu indi fitna day yomb moo tax lislaam da ko sant buy génn mu génn génn boo xam ne du indil kenn fitna waaye maanaam buy génn tamit dafa war a moytu maanaam génn taar taar yu metti yi xam naa loolu moom sama saar gi déggaguñ ko maanaam yenn yenn sañ-sañ yu metti dal comme niñ comme niñ ko xamé ci jigéen ñi nga xamné manam bala ñoo mëna a sañse jasneer maanaam maquillage saf <laughs> wa def def tagal gu kawe gaddu saga ak sol sol dal yi gudd dañoo genn ta loolu fiñ ko soppé moy ci biir kër gi dañoo bëgg bo nekké ci biir kër gi nga gëna a sañse booy génn wax deug yalla nga sol lu ndax bi ki ko war a gis mooy borom kër gi wax dëgg yàlla moo ko war a gis moo def ci yow alalam waaye ñi nga xam ne maanaam takkuñu la wax dëgg yàlla ay ay góori jàmbur la daal nga bàyyi leen jàmbur yi xam nañ ne laal parfum bu bu fort tamit di génn ci jigéen lislaam da ko tere xam nañ ne parfum tamit dafa bokk ci ci ci li ci nit parfum dafa bokk ci ci bànneex yi waaw te te bànneex yi dañoo bëgg muy muy des ci kër gi xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi day wax ne bépp jigéen boo xam ne génn na biir këram génn na këram laal parfum bu foo romb ay nit ba xet gi ba leen mu ne kooku day njaalo day njaalo day njaalo ñett yoon la ko wax lu doy waar xam nañ ne njaaro ci bàkkaar yi gën a bon ci la bokk kon bu ko bu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tëkkaleeg loolu noonu kon xam nañ ne loolu loolu tamit lu doy waar la ndax xam nañ ne bët day njaalo xam nañ ne des fois nga xool loo xam ne dina la yóbbu ci étape boo xam ne bëggoo fa woon àgg te li nga xool te xool moo ko waral xool bët dafa garaaw moo tax lislaam bëgg jigéenu jullit bi buy génn mu fexe ba wax dëgg yàlla du yee na waaye xam nañ ni tamit jigéen mën naa génn liggéey waaye du n'importe quel liggéey nag wax dëgg yàlla la war a liggéey ndax xam nañ ni jigéen masuliyaam bi njëkk mooy nag wax dëgg yàlla mu mu lijjanti këram toppatoo borom kër gi yar njaboot gi toppatoo kër gi loolu ndax loolu bu ëllëgee dañ ko koy laaj kon booy génn di liggéey fexeel ba liggéey bi ngay def di nga dina dinga ko mën a booleeg maanaam kër gi ba nga xam ne kër gi soo génnee tamit kër gi du am benn faay waaye yow tey jii comme xew léegi nga xam ne comme genre 8 mars yi ñuy ñuy favoriser jigéen joo xam ne maanaam nee nañu yeey maçon lay def maçon maanaam maçon ñu maanaam ñu naan bu ko defee ñu koy favoriser naan ji jigéen ñi dañoo jàmbaare lu góor man jigéen mën na ko waaye jigéen ji nga xam ne maçon lay def maçon ak ni mu méttee nga xam ne góor ñi sax wax dëgg yàlla ku ku ku liggéey maçon ba wàcc ku liggéey maçon ba wàcc di nga tal lu ne moom lu dul lijjante kër wax dëgg yàlla waxuma la dara waaye melokaan wi ngay àndal booy booy booy maçon rek <laughs> léegi loolu noonu nga nga ne nga ne da ngay liggéey parce que lu góor man jigéen man na ko loolu jaaduwul jigéen dafa war a liggéey liggéey boo xam ne du yàq ci jigéeneem dara xam nañ ne jigéen wax dëgg yàlla dafa war dafa war di taaru nag dafa dafa war di taaru wax dëgg yàlla boo ko gisee xam ne jigéen nga gis waaye gis jigéen tamit di ko jaawal ak góor lislaam bëggul loolu <laughs> ñu ngi jéggalu ci ci ci ci kii bi waaye leeral gee leeral gee ko laaj kon lislaam dafa bëgg jigéen buy liggéey tamit mu def liggéey boo xam ne dëppoon naag nature am comme lu mel ni maanaam mën naa nekk sage-femme mën naa nekk tamit jàngalekat yooyu dina yàqul dara ci ci ci ak njigéeneem dina maanaam parce que so coono coono coono bu bari jigéen moomu ko ak ni ko yàlla bindee moomul yenn coono yi maanaam buy sonn yenn coono yi rek day day day am lu muy def ci moom day am lu muy taasir ci moom te dina tax tamit masuuliyaam bi ci kër gi du ko mën a def kon ñu ñu xam ne daal lislaam tënkut jigéen waaye nag da koo bëgg a protéger dafa bëgg société bi jag àdduna bi jag te xam nañ ne société pour mu jag fawu jigéen jag looloo tax euh, lislaam tegal ko ay dawaabit mu pour mu jaar ci waaye xam nañ ne tamit jigéenu jullit bi bu toppee diineem comme ni ko ko lislaam sante tamit warta war naa dund dund dundu jamonoom war naa xam ci war naa war naa ibbeeku ci jamonoom warta nekk koo xam ne rek maanaam toog ci kër gi rek toog ak yekk yow xamoo xamoo lala luy ri luy ri ci àdduna bi xam nañ ne jamono jamono bi léegi dafa changé technologie yi nga xam ne xew na jamono ji amutoon bu njëkk kon ki nga xam ne dañ ne ko yow yow yaay yare dafa war a nekk koo xam ne dafa war a ibbeeku ci fànn yëpp ndax xam nañ ne léegi xale yi dañoo yeewu léegi maanaam wax théorie rek yaratu leen yaratu leen ki leen di yar dafa war a nekk koo xam ne moo leen sut moo leen sut ci xel pour mën leen a éduquer teg leen ci yoon ndax yow sa doom bu fekkee ne yow internet am na yow xamoo ci internet bi dara moom mooy dugg moom mooy génn xamoo lu muy bés xamoo lu muy lijjante booy booy wooteem numéro sax moo lay wooteel kooku mën naa toj àdduna te doo ko xam waaye bu fekkee ne yow ki lim lim xam yaa ko ko gën a xam di nga lijjante fu muy dugg ak fu muy génn te di ko mën a xamal fekk ko moom ci li mu nekk ba pare yar ko ci xamal ko ci li baax ak ci li bon kon jigéenu jullit bi war naa ubbeeku waaye waxuñu tamit nag nga ëppal nag ah, jamono mar war ngaa ibbeeku rek yow tamit nga ne comme war naa xam ci technologie dara xaara xaara ma monte kii installé WhatsApp <laughs> installé WhatsApp boo xam ne maanaam groupe bu ne inscrire nga ca yow maanaam sa journée bi yëpp tonti message nga ci nekk ak envoyé maanaam bu bu bu doon sax groupe bi diñ dañ ci jàngale diine loo xam ne dina la yokk ci sa wàllu diine sax ñu ñu mën a wax waaye yow di nga temps bi bu bari bi ngay def ci ci ci ci ci whatsapp beeg facebook yu yi nga xam dina dem ba nga xam ne yow li la war ci sa kër sax doo ko defati bëgguñu loolu dañoo bëgg maanaam jigéen wasat ya maanaam équilibre équilibre fexe ba maanaam dund sa diine comme ni mu waree di def say wareef comme ni mu waree ba pare sa jamono du la raw sa jamono du la du la raw loolu lañ bëgg xam nañ ne jamono bi jamono bu njëkk baak léegi bokkul waaw bu ko defee <laughs> ñi ñi ngi jéggalu ci kàddu yi dañoo xaw a sonn nag ndax dañoo génnoon voyage bu xaw a kii looloo tax daanaka thème bi jékkiwuñ ko lañ doon dañ doon wastu àq rek <laughs> comme que nee nañ euh, journée bi journée jigéen ñi la kon jigéen ñi faw ñu participer ci loolu tax ñu ne xaar ñu jéem a jéngu góor góorlu li ñuy tëjee waxtaan wi nag mooy ay kàddu yoo xam ne dañ ko wax ci soxna jaara faaw ñu wax ko ndax mooy borom bés bi faaw ñu wax li nga xamne mom la amone ci ay jikko ndax jigéen ñu jigéen ñi man ci roy xam serigne Bachiru Mbàkke mom serigne touba dafa wax ne dafa wax ci su jikko soxna jaara ne wa kaanatil walidatu jaaratullahi maryama saalihatan عفيفة دينية كثيرة الصلاة والصوم والصدقة مستسلمة لربها قائمة بواجبات دينها بينها وبين ربها dane soxna jaara dafa nekkoon jigéen ju sell jigéen joo xam ne dafa fegu woon waaye jigéen joo xam ne dafa daan jëfe diineem waaye bari woon tamit lu muy julli ak lu muy wóor ak lu muy saraxe waaye xam nañ ne mbokk yi saraxe ngir yàlla waaye jigéen ñu bari bu ñuy saraxe da dañoo am dañ leen koo digal saraxeel ginaar wala saraxeel xar wala saraxeel mbu mbuusu mbiskit bu ko defee nga ne nga saraxe soxna jaar da daan saraxe yàlla tax ndax xam nañ ne sarax sarax dafa mën a fànk lu bare bare bare sarax dina fànk gu ñaaw sarax dina waral njéggalu suñ borom sarax dina waral lu bare bare bare bare waaye mu ne daa nekkoon koo xam ne dafa jébbaloon léppam boromam nekkoon koo xamante ne tamit da daan taxaw ci ay warteefu diineem daan def li nga xam ne moom la ko boromam digal ba pare tamit nekkoon koo xam ne da daan topp borom këram sëriñ سيدي محمد جو ادغاني تامت مام تامت انديل اي بيتي تي سخنا جارا يو خامن تامت داي واخ باتاي تي جيكو سخنا ني لها العلامه لا يخفى على احد صوم صلاه دعاء ثم استغفار صبر حياء واخلاق مهذبه طيب الكلام وما بالخول مكثارا صمت سكوت وقرآن ترتلها وقت السحار إذا ما الليل إدبارا تلازم البيت خوف الله بارئها خوف الله بارئها بتاعة وعبادات وأذكارا فاليوم صائمة والليل قائمة تراقب الرب إجلالا وأفكار وأفكارا تعطي وتطعم مسكينا وسائلة توسل الرحمة إخفاء وإظهارا تلك الصفية أرضى الله أرضى الله صنعتها دنيا وأخرى وإعلانا وإسرارا ديكو يا أم solo la la سوحنا soxna من سوحنا ne soxna jaara dafa am màndarga moo yan mooy yooyu màndarga mu ne saw mun dëkke woor salaatun dëkke julli waaye du'aun dëkke ñaan su mastigfaara waaye dëkke jéggalu suñ borom mu ne sabrun muñ lu am solo muñ muñ jigéen ñu bari war nañoo roy soxna jaara ci nangoo muñ waye nango muñal tamit ki len yalla Sukutun sukutun nopi jigen ñu bari mom wax dëgg yàlla wax wax wax ju bari mom man nañ ko lol te du am jari hayaun de sukutun nopi ah, <laughs> saburun wa kay muñ xayaawun kersa kersa jigen dafa wara bari kersa xamnañ ne kersa moy xaju ngam yalla Jigen dafa wara am kersa way warta wow beut ñame lool rek am na luma faté juñju ci ci liggéeyu jigen manam am na liggéey yo xamne jigen waru ko liggéey parce que andut ak kersa jigen ba paré day maanaam comme lu mel ni maanaam ay défilé yooyu noonu ñuy favoriser naan miss diw ak miss lii loolu du jigéenu jullit waru koo def xam nañ ne yooyu pour nga def ko faaw nga nekk koo xam ne ku wow bët ngay doon ba pare faw nga nangoo simmi say ca loolu jigéenu jullit du liggéeyu jigéenu jullit jigéenu jullit warut a def liggéey boo xam ne day dàqonteeg diineem waaye mu ne waa axlaaqun muhazzabatun ay jikko yu rafet rafet rafet tibul kalam wax ju son la jaara nekkon ku tey wax da da wax di di rego ju comme niñ ko xamé di di wax di tàccoog comme niñ ko xamé ci suñ mbokk jigéen ñi nga xamné su su buñu bu buñu buñu bu bu wax ak borom kër yi di jaay affaire ak yooyu waaw ma <laughs> day na war dafa nekkoon ko teey wax te bëri wax bariwutoon wax waaye dafa nekkoon koo xam ne dafa koo woon këram daawul dox lu bari dox dox lu bari waaye bu ñu dox gu amul njariñ la lañ ci jublu dox gu dox gu amul njariñ waaye ki nga xam ne day dox ngir dem ngir sàkku ji xam-xam wala jigéen ñi nga xam ne day génn këram pour liggéey wala jigéen ñi nga xam ne maanaam day day dem dem ngoo xam ne dem farata la loolu waxuñu ko waye dem yu bari yi yiñ xam ci jamono ji te amul benn njariñ dem bi ndaw talak dem ne tak demi tour façon dem yoy nga xamne ne daanaka la nga fay def sax deugunut mom la nga fay def dëgganut yoy yoy amul benn njariñ bu fekke da nga nara genn genn go xamne amul njariñ nga tok sa bir mo ba ci yaw waye dafa nekkon ko xamne dafa ragal boromam. ah dafa bari won ay ibadat comme niñ ko waxé daan bari lu muy tuddu yalla waye daan wor bëccëg gi yëpp di taxawal guddi gi di ko jaamu yalla daan fuglu boromam tamit waye da daan lélé aw ñam daan jokk mbokk wax nañ né sonu Jaara da daan jékki-jékki rek rablu ay sœur di ko di ko bu ko défé ne sonu ante ñay mo la ko jox bu ko défé ku ak soxna Anta jaay nek wax ko ko nek ah yow sa ki bari na di mu nek soxna jaara la lo am solo jokk mbokk gogu jigen ni waye wax deug yalla fekk fami bu jokkalo nga fexé ba dox ci digënté bi man na ñak mune ne tilka safiyatu suñ borom gëreem na ay jëfëm aduna ak alakhirah ci lu feñ ak ci lu nebb nëbbu ngërmaane suñ borom nak fi la la koy fayé mom xamnañ ne kim ñuko fayé moy mooy suñu yaakaar tay ak ëlëk nga xamne moy atté jamono ku wéku ci mom <laughs> wa kay ñu ñu yawale ko fofu tënk ko foofu ñu ngi jéggalu ñoo wax nak dañ doon dañ doon dañ doon jëm rek ñu ngi jéggalu bu baax di ñaan yàlla suñ borom lépp lu ñu fi wax lu jub ñu xam ne suñ boroom la lépp lu ñu ci wax mu xam mu xaw a dëng tamit ñu xam ne mata di doomu aadama la waaye dañoo bëggoon rek lépp jag dañoo bëggoon soññ suñ bopp soññ suñ bopp ju jigéen ñi soññu mbokki taalibe yi ñu xam ne jigéen dafa am solo jigéen du n'importe qui jigéen dafa war a góor góorlu jigéen warta nangu góor di ko raw ci jaamu yàlla waru koo nangu warta nangu góor di ko raw ci ay yiw yu baax ñu xamne tamit képp ku fi bax jigéen la jur kon comme que jigéen képp ku fi bax moko jur kon war gur lu bu bah, a baax ba am ci ñu bax ñoñu nak lool moy ndam aduna ak alakhirah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin <laughs> euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sona zainab ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci waxtaan wu am solo wi euh, am nañ yaakaar ne ñi fi tew danañ ci jëriñu bu baax a baax a baax mu mel na rek lim fi jot a jot a junj lépp te lépp bari njariñ mu ngi tënku rek ci xamle dayo bi nga xam ne lislaam jox na ko jigéen loolu mi ngi ko laytaale laataa lislaam di ñëw niñ daan jëflante ak jigéen ak bi lislaam ñëwee naka la soppee loolu mu mel na rek leçon bu njëkk bi nga xam ne lislaam jox nañu ko ci taxawaayu jigéen mooy diggante sëydatu naa xadija ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam ndax gis nañ ne ci lislaam di soog a door rek bi yonente bi di njëkk a daje ak jibril mu naan ko iqra bim ñëwee amoon na ci ay situation yi nekk waaye dafa fekk soxna su baax soxna su baax soo di soxna xadija doon ko xamal ne jërul ngay tiit jërul ngay jàq ndax yow ni nga mel ci ak mbaax ah, sun borom du la teg lu metti sun borom du la teg gàcca te loolu na ben effet bu am solo ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam sallam nako encourager ci lettre bi nga xamne ne suñ borom yoni won nako ngir mu indil ñuko ñaarel bi wax na it ngir jigen bax faaw buñ ñako da nga bax faaw ñu xamal ko lan moy ak mbaax ak naka la ci yeggee mu xamal ñu ne jigéen dafa war a jàng dafa war a jàng xam li ko war ci digganteem ak boroomam ci ay jaamu yàlla waaye xam naka lay jëflante ak nit ñi ndax ak jaamu yàlla moom ak xam moo koy jiitu xam koy jiitu foofu nag li ma ci li ma ci junjaay rekk mooy am na wet goo xam ne góor ci boppam moo ci moo ci moo ci moo ci war a góorgóorlu ci sàmm jigéen te mooy yow waajur bi boo amee ndoom su jigéen bu tollee ci xamlu nga xamal nga xamal ko diineem ngir mu man koo sàmm waaye yar ko yar bu rafet ngir bu màggee mu mën a jariñ boppam jariñ ab sociétéem waaye tënku ci valeur yi nga xam ne moom la lislaam dénk jigéen ngir mu ngir mu nekk ci ginnaaw loolu wax na wax nañu ci jikko yi nga xam ne moom la jigéen war a war a war a war a làmmoo ak melo yi nga xam ne moom la moom la war a meloo tudd na ci lu mel ne muur ay ay ay cëram tudd na ci lu mel ne fegu mu mel ni yooyu yëpp nag benn du ci mën a am lu dul ne jigéen gi ndax moom rek munta jekki-jekki rek am yëg-yëg waaye dañ ko ci dañ ko ci dañ ko ci yar buñ ko ci yorut munta mana, munta mana a eh, jaar fof ndax dañuy fàttali ne soxna jaara mi nga xam mom lañuy mom lañuy fatali ko tey jii moom jigéen moo formé ndax eh, wax ma buso hawa mbay dafa teeloo na nelaw waaye waaye juróom soxna asawalu moko ko yar moko yar jangal ko alquran jangal ko xam-xam waaye yar ko yarub diine kon jigen dal kuñuy yar la waye buñ ko buñ ko wax ne ko dangaa war a baax rek yem ci danga koy wan yoonu mbaax mu aw ci ah, naka naka nooy maanaam buñ gisee jigéen aw ci ab safaan bu jekk-jekk rek sànni ko ca sën ba ne kii bon na yàqu na ba noppi daal nañ ko indiwaat jéem koo jubbanti ndax ñoom ci ci seen suñ borom subhanahu wa taala moo leen bindee noonu ñàkk ñàkk mat gi dafa ëppee ci ñoom waaye loolu li ñu si bëgg a jàngal rek mooy ñun ñi ñoo leen war a jubbanti ñoo leen war a jàngal ñoo leen war a xamal kon ñun góor ñi ñu gën a góorgóorlu ci wet googu bu baax a baax a baax biñ noppee indi na ci jigéen ndax buñ ne ko da jaamu yàlla duñ ko wax ne ko dangay jaamu yàlla rek yem ci waaye liggéey yi mu war a def àdduna gi mu war a dund it faaw dañ ko ci tegal ay ay ay ay règle yoo xam ne ci la war a sukkandiku waaye lépp rek day day aju ci li njëkkoon wax te mooy buñ ko waajalee waajalin bu baax kenn du amati ak tiitaange ci moom dina xam yoon wi muy jaar te bu demee ba nekk ci lenn moo xam même bu fekkee loolu dafa àdduna ba ëpp sax dana xam naka la ci moytoo boppam ñaareel bi te xamal xamal nañu ne lislaam tënkul tënkul jigéen tënkul jigéen waaye am na da ko dafa am fu mu koy yamloo danaan danaan ko lii moom yow la war waaye lële bàyyi ko bàyyi ko góor ñi lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jigéen buy julli di ko def di nga ko war a defee bu koor ñëwee mu defe noonu sàmm boppam euh, sàkku ngërëmal boroom këram àjjanam taxaw na comme lu mel ni lu jëm ci jigéen lu jëm ci wàllum diineem lu jëm ci wàllum digganteem ak boroomam loolu yomb naa lijjanti ci moom waaye li li ma waxoon rek buñ ko ci buñ ko ci buñ ko ci yarul du ko du ko du ci ci mën a jaar léegi lii des mooy li dox digganteem ak boroom këram ak li li dox digganteem ak yeneen yeneen nit ñi li dox digganteem ak boroom këram mooy mu mu saa yu muy sàkku ngërëmam saa yu ne muy sàkku ngërëmam bu dee lu dox li dox ci digganteem ak yeneen nit ñi li ma ciy tudd rek mooy mu moytu di maa mu téye làmmiñam ak loxoom ci ñoom ndax yonent bi sallallahu wa sallam nee na dëgg dëgg jullit mooy jullit bi nga xam ne nit ñi mucc nañ ci loxoom ak làmmiñam loolu nag jigéen moo ci rawati bañ di toog di nekk ci de der deri nit ki di di yàq te saa yoo yëgee ne loolu bari na yaa ngi koy def nga dem jégglu kook nga ko doon def mu mel ne it ginnaaw bi ñëw na ci yenn jikko soxna jaara yi nga xam ne sëñ boobu tagg na ko ci tudd na ci jikko yu baree bare rek yim jotoon tudd waaye tudd na ci mel ne kersa nga xam ne daanaka mooy moom moom mooy mooy mooy moom lañ war a xàmmee jigéen kersa waaye feeñ gu ëpp ak wanewu gu ëpp loolu jigul jigéen te baaxul ci moom kon daal soxna Seyna bi ñu ngi lay sant bu baax a baax kàddu yi am na solo lool kon daal soxna yi nañ gën a góorgóorlu waaye ñun góor ñi nañ ku ci amul njaboot gu jigéen nanga nga ko teel a na ko teel a jubal te teel koo teg ci yoon wu baax ku ci am soxna it na ko na nga ko teg ci maam na ko wax nan nan nga bëgg mu mu mel ni ba noppi di ko ci soññ bañ ko cee sonal bu kenn ku ne ci ñu ñaar daal. bu ñu defee li ñu war boobaa jigéen dina baax te bu jigéen bu jigéen jigéen bu baaxee société bi dina baax te lépp ci te lool la ñëpp di sàkku ñu ngi santaat ñëpp di jéglu ñëpp di jégaluwaat ci kàddu yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.